ki jiite barab bii di alxaaji mbakk yi fay waaye tànn itam imaam yi nga xam ne ñu ngi fi imaam yooyu nag sëriñ Abo Mbàkke def cee bokk mu tànn ko mu ñëwoon fii war noo defal taraawix yi yàlla def ñu baree bari itam taamu ko yàlla defal ko ci tawféex ju waaye nag ren dafa am lu ci dolliku loo xam ne moo tax ñu taxaw fii tey mooy dafa am diplôme boo xam ne bu ngeen gisee fan yi yëpp nekku fi woon waaye nag ñu jaajëfal ñi ko fi wuutoon di sëriñ euh, naa loo ak sëriñ Guédé ci taxawaay bu rafet bi ñu fi def ginnaawam waaye ñu dee leen ndokkee rek di wax ne dafa am diplôme boo xam ne moom la doon jëli muy loo xam ne day wane ne te dafa mel ni ñoom ñett rek ñoo ko am ci senegal ñoom lañ ko doon jox ci senegal waaye yàlla dogal itam ki leen ñetteel di jigéen waaye yàlla dogal ñoom ñaar ñëpp it jóge Touba ñoom ñaar ñëpp Touba lañ jóge waaye kenn ki moom la ki ci des di jigéen loolu ñu war cee sant yàlla bu baax kon muy wane ne diplôme la boo xam ne day wane ne lii muy def nii ba taxoon ñu tànn ko fi tey nag ñeneen ñoo xam ne ci bitim réew lañ ci àdduna bi yëpp bokk ko ñoo ko jox diplôme bii wane na kat am na ndam lu kawe loo xam ne mooy wane ne maanaam xeeti njàngin yi sunu borom defal na ko ci tawféex ba mu di ko jàngee nañ ko war a jànge kon nag diplôme bi moo nekk nii ngeen ñëpp ngeen gis ko kon mi wane ne barab bi waxtu wu ne rek sunu borom mi ngi ciy gën a dolli ay tawféexam loolu bokk itam ci tawféexi mu Muntaxa yi nga xam ne waxtu ne daan bu tudd baatu tawfiix waaye mel na ni tawfiix jooju topp na ko ba lépp lu mu laal rek sunu borom def ci tawfiix wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw liñ ci liñ ciy dolli rek ci kàddug imaam mooy di leen sant ñoom ñii di ci jiital sëñ Bachiru mi nga xam ni mooy imaam bi sëñ Bachiru Lo ak jëwriñam bi di sëñ Xaadim ak sëñ Issa Gueye ak ñi nga xam ni ñoo bokk barab bi yëpp di leen wax ni barab bi nag day barabu suñu boroom Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko yàlla liggéeyal ko lislaam ñu warce cee mooy ñun ñëpp jàpp ci xam ni la boroom waxoon rek ni daraa ngi fi na gën ni daaw la moom mii dem ba Liban présenté fa maitrise finance doctorat finance islamique kon loolu doon la dolloo ki ci ndam yi nga xam ni sëriñ Touba am na ko ci njabootam gi ak taalibeem yi surtout barab bi di Masalikul Jinaan kon moom it ñoo ngi koy dokkale di ndokkale imam bi nga xam ni mooy kilifa gi di ndokkale mboolem seen jullit yi fii daje yépp ak taalibe yi gis ngeen barab bi bu ndogu jotee ni muy mel nga xam ni fu nekk la nit di jóge di fi ñëw te lépp ci xeeñtu diine ak barke bi nga xam ne bii sans borom def na ko fi ci liggéeyub sëriñ Touba bu mag bii mu liggéeyal diine liggéeyal ko lislaam kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan ñëpp ñu gën a ngoy ci barab bi gën a jël suñu pasteef gën a jël suñuy doole gën a jël suñu lépp jaayante kook sëriñ Touba ba barabam bii nga xam ne bii bokk na ci barab bi gën a ràññeeku saa su ne ñu koy gën a xemmeem ñoo ngi gërëm ñëpp di sant Cheikh Mahmoudul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal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 ay mbokk yi ay xeetu produit yu bees tax yu ànd ak qualité ndekete yow digital store moo mën ci xarala yu bees yi